di ni teewlu ci seen site numéro un de l' actualité sur mobile mu mel ni mbégte safar gi mooy dox di ñu ngi fii ci Touba dëkk bu sell gu tedd gi nga xam ne Serigne Touba ko sànc ngir texe jaam ñi nga xam ne ñu ngi ci wàccaay fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu ngi fii ci résidence Khadim Rasoul fekk fi kenn ci jàmbaari Serigne Touba di ko waxtaane di xamle ay xar baaxam di xamle ay mbiram ngir àddina jot ci Mamor Cheikhul Khadim leen koy wax miin ngeen ko lool ci réseaux sociaux yi miin ko ci télé moom leen fi fekk ngir fas yéene waxtaanee ak moom Mamor wàccaay màggal gi waaye dikk ak yow it ci waxtaan wi ndax tamit Mamor dañ lay dàkkante ne Mamor yoonu géej gi Mamor asalaamaaleykum ñu ngi lay dalal ci Sénégal. waaleykum salaam maa ngi leen di ziar bu baax euh, yéen téléspectateurs yi Sénégal ak seeni téléspectatrices di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi nag. ñu koy ñaanal. nan ñaan Serigne Mountakha mu yàgg fi. nan ñaan Serigne Mountakha moom seriñ Serigne Bassirou mu yàgg fi nanu ñaan Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou mu yàgg fi lool. Mame foofu nga duggee ci seriñ Serigne Mountakha ñu ni tamit ñu dolli di la wax ni ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te lu tax. waaw ndax euh, c'est le père de la nation Serigne Mountakha régulateur la Serigne Mountakha éducateur la jàngalekat la Serigne Hmm, ndimbal la ci bii xarnu jamono bu ne ak ña leen yàlla di booleel wala ka leen yàlla di booleel ji jamono sëñ Muntaxa koy réglé moo xam xàmme ànd ak dal ànd ak euh, teggin yu mat sëkk mu jàngal na ko waaye liñ ci dàqalati nag moom daa bëgg Sëriñ Tuubaa te yemelewu ko dara loolu la maam Mor weer wu nekk ak la cee xew weeru safar wu teroo mel na ni murid yi ànd ak sago maam Mor mbégtum safar bu yegsee naka nga koy yége waaw na ma koy yége rek mooy démb dama dégg kilifa gu wax ne boo seetloo ñiy jàng ku ci am bag bis bi nga amee bac ngay feete boo seetloo waaye doo gis mu ko kuy kuy feete bis bi mu dalee baax c'est la première fois nga gis koo xam ni bis bi mu amee naqar ay coono lay feete koo mës a gis muy feete danaan bis bi ma yàlla musale ci nàngam tedd teggil na ma coonoy nangam naa ko feete sëriñ bi moom bis bi muy feete mooy bis bi ko espèces yi wëree tund jeewal nga xam ni dinaa faral di wax ne jeewal kese waroon nañ ko jàngalewaat ci école yi ndax bis boobu la ca xew doy na waat 10 août 1895. 10 août tey mooy 9 août tey la maam Thierno dem jàkkaarloo woon nag commandant la Mouté gouverneur la Mouté. la na fa xew. waaw dafa ñëw indi lettre sëriñ bi ñu ne ko ki nuy woo ndax dana ñëw. mu ne am naa yaakaar ne bu jotee seen ndaw dina ñëw ñu ne ko jox nañ ko ay convocation maam Thierno ne leen kon da koo jotul ndekete booba le quatrième jour safar bi la sëñ bi takku ngir dem sunu borom ne ko xaaral ndigal guddi gii la Jibril daj eh, loo ak maam Thierno parce que le 9 août booba li xew mooy bi sëriñ bi yéegee tund jeewal nee na tubaab yi ko war a jël si bari nañ bari goo xamante ne fetal yi ñu yor dafa foogoon ni toolu dugub ju nangu la mu ne sëñ ma bànji njaay ma bànji ci mag ñi màndal ànd fukk ak ñaar sëñ ma sëñ Omar la bokk sëñ ma bànji njaay ca bokk ak sëriñ Cheikh Ibra Sarr Njaañ bokk sëriñ Omar ñaan mag la àndal ak ba ñuy fukk ak ñeneen ñi mën naa leen a bañ a teewlu ak ñoo xam ñaar ñoo xam ni Jazaaw Sakkoor situé na leen muy sëñ Baye Dieye ak Mamour Fall kon mu war a des huit personnes yoo xam ne àndaat nañ ca délégation mais bi mu jàkkaarloo ñoom li mu njëkk wax dana leen ñii bis bu ñu jàkkaarloog man dinañ xam ne mësuñoo jàkkaarloo góor gu mel ni ñun foofa nag ku fa mës a àgg ba jàkkaarloo say noon looy wax say gaa na fitt yi teeŋ na karab bi ni soxu na fetal yi taxaw armé wu leen engagé wu leen du loolu ngay wax moom na dana leen tàllal leen ma ñaanal leen ngeen dellu looloo garaaw. Mamor kon foofu dañuy dugaale rek ci première tomb bi mu di safar gi ndax safar gi bu egsee muy weer wi waaye fukki fan ak juróom-ñett ñu koy màggal mu wax ni nañ ko ci santaaleel boromam am na lu ko jiitu. maanaam am na lu jiitu lii nga xam ne moom moo indi fête gi ba yéen sax da ngeen koy jàppee comme une fête nationale waaye di feete ci nakar te mënoon feete ci mbégte loolu la Serigne Touba def kon nga résumé waale ñu loolu rek ndax mënuñu toog ak Maam moo te duñu wax lu jëm ci yoonu géej gi ndax yoonu géej gee ñu may li nu am. waa ci laa ne safar weer wi la ñuy jir rek di préparer màggal gi ñun sax ñoo xër di ko préparer nekk ndakaar rey nag léeg nga gis ku nekk Ndakaaru rey nag ci safar gi te bisu màggal gi du reyal Serigne Touba ginaar. du noonu déedéet màggal gi dañ ne da nga koy waajal weer wi ngay waajal noo koy waajale njàngum kaamil nanga koy waajale di dajale xaalis noo koy waajale di préparer ay ndugg 18 jours yi loolu nga ci war a waajal su la neexee nag nga daje fenn ne nañ leen ko dund loolu ayul mais li ma bañ mooy weeru màggal gi nga am beneen bis nga rayal ci sëriñ bi la nga yor bisu màggal gi rayaloo sëñ bi dara parce que sëriñ bi santaanewul ne weer wi bu ñëwee na ngeen màggal weer wi bisu bisu 10 août 1895 dëppoog màggal gii lanuy màggal muy bisu suba bi boobu la sëriñ bi wax ne li ko dale ci ginaar ba ci giléem te maa dégg ci sëriñ mu laay busoo mu wax ne keroog ki ko njëkk indil ab bëy dana sëñ bi sëriñ bi moo ko ni mulaay demal sëñ mulaay la ne ko demal nga soppi ko am xaaf xaaf mooy xar sëñ mulaay dem ca marché ba soppi ko am xar sëñ bi ne ko lewetal ko sëñ mulaay ko rendi fees ko kon xar mi njëkk a rey ci màggal gi sëñ mulaay busoo ko fees moo ko defar sëñ bi ne ko def ko ay saam ñu def ko ay saam loolu dëppoog 1900 vingt et un mun leen koo xam ne sama mbégte sa mbégte la bu bis bi ñëwtee li ko dale ci ginaar ba ci giléem fi ne booy seet sax ñaar yooyu mu tuddoon ñoo gën a sonn ginaar giléem fi mu ne li garaaw mooy dara lu giléem doo ko gis fenn ci àddina bi Tuubaa kese nga koy gis te màggal gi lay doon tudd gëm ko tuddoon rek tax na ba ginaar moom la gaa yi nekkee moom la gaa yi waajale ginaar googu mais tamit bariwaa na koo xamante ne at ba at lay lekk ndawalu giléem te fii la koy lekke waa parce que giléem la sëñ bi tudd rek giléem ne ko man faaw ma faatu ci sa bis bi ndax yaa ma tudd garab gu mu laal moom sëñ Tuubaa sémmiñ dootu ko laal fas wa rek dañ koy siyaar boo demee fii Ngélémou bu nu àndoon ma wan la fasu sëñ Tuubaa fañ ko denc danga naan ban xalifa lañ lañ denc fii nit ñi di dugg di sukk ci fas wi di ñaan itte kaas bu mu bu mu bu mu dootul bokk ak yeneen kaas yi. kon Mamor euh, tey mu ne Afrique wala àddina waaye ñun Sénégal nga xam ne ñun la ko yàlla jagleel nan lañ war a jàppee. Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu euh, rasul waaw en tout cas de gis naa ñoo xam ne jàppuñu ko mais bu doon sëriñ bi naar la ñu jàpp ko ndax lim def dangay gis koo xam ni benn acteur de film lay seetaan muy Bruce Lee wala Van mu def ay trucage loolu xam nga ni muy demee film mën nañ ko jouer ci salle bi mel ni ay montage lay doon bari na acteur boo xam ne danga naan cooki fin bi laay xaar ci moom mu rey bandi yëpp nga faa ko jóob bu subaa nga jëm marché Sandaga jënd benn posteram taf ko ci sa néeg parce que lan seetaan film boobu mu rey bandi yi benn ballon d'or ku ñu ne moo ko jël tey nga faa ko dem uti posteram taf ko ci sa néeg ko sa fond d'écran téléphone xamu ko xamula nga faa ko sëriñ bi def lii mu def bokk ak yow der dëkk fii Mbàkke Bawol tenir tubaab bi dem ak ñoom sept neuf mois Gabon man maa dem ba maa yomba maa dem ba fa nga xam ni fala doon wax naan raqibun atidun fil jazirati maa yomba maa dem ba fa mu bind jaalibatul maraqib moom ko dégg sëñ Musaa Ka naan foofa la taalife mu xaddimaatul amda bu rëy ba ay wesar lim na baat ya yoolam ba faw xana minal xayraati yoolub durus daraaloo xayraati taalif na foofu téere yi loo yowmal xiyaam tubaab ya xujumlu foofa la tàggoog musrikiina ak musrikaat foofa la tijje màngasini barakaat foofa la dambe mulki ak malakoot foofa la atti yàlla yi jabarut foofa la sukkuru saakirin dellu ko booleeg sikri saakirin foofa la amee nujaani arab bi fawxa ña nàmpoon ca jasaaru arab bi foofa la amee barakatu quraan fala rawee bii daan ak soodaan foofa la waxee sax kitaabu rabbi kaana li wakkuntu kuntu la wawalilaahi bi sakantu moom la waxoon foofa ba muy patamtu bayit yi moo mag moo raw xasid ak jawartu foofa la bis ak saaat yi soppi ko ay jëmm di xar aadaat di ko digal maa ko noo lay seere yow mal xiyaamati li lay ko biire mu ne nag loolu la bàmba jàng ca booy bi boobi loolu la bàmba wax ca boobee téere yi lay jommal na bépp fóore maq u rasulullahi rabba kulli wa sarmadan jaxaran kasaran xulli foofu la waxee nag yàlla jox na ko fa mbooleem yool yëpp yi aji ñiy aji umra jaari kër rasuli nafaani naafixu fi limbal wéri bi maa bi yabitu ni kulawuli taalif na foofa téere yi wedam loo yowmal xiyaam tubaab yi xujumlu foofa nag Maayomba boo fa demee di nga xam ne nag. li Serigne Moussa Kaka wax. li Serigne Moussa Kaka wax ko ci Jasaaw Sakkoor bi nga xam ni naar bu ñuy wax Abdou Latif moo ko yaxal ndax sëriñ bi tukki bi da koo ñoroon ba danañ toog ba mu yàgg bëgg a baaxee nit parce que xamoon na ni tubaab bi dañuy nëbb suñuy archive parce que bul fàtte ni à part rapport yi nga xam ni dañ ne lii lañ joteek sëñ bi ba yóbbu ko amaatuñu dara ci archive ah bon oui amaatuñu benn archive xëy loolu général bi dinañu ci dimbali. ñu mel mel na mel na ni mel na ni <laughs> mel mel na ni jotaay bi du hasard ndax ñii sa ginnaaw defe naa ñoo ko yóbboon démb waaye tey ñoom ñoo <laughs> ah ah. <laughs> xam naa ñoom dinañ dinañ dinañ dinañ buñ suñu gënee jaxasoog yoonu murit archive fa ñu ko denc parce que boo déggee sëñ Moussa Ka di wax naan ñu woolu labbee forom ngir jaaxle ñu ñëw na delloo leen ko mbaanu bu baax le leeram gi sànn asamaan ba jabaroo sar na fi suuf dàmbe na mulkeek malakoon nuuru jalaala wan na koy jalaal nuuru jamaal wan koy jamaal nga xam ni làbbe yooyu dañu dañoo jóge rom bi ñu ñëwee nag li ñu wax ak sëñ Tuubaa dañ ne ko nag li ñu bëggoon ñu fexe ba euh, ay archives am ngeen nëbb ko moo tax rab archives yooyu yëpp bi ñu ko laajtee sëñ Moustapha Gaynde Fatma ne am na yu jotoon a ñëw wala sëñ Moustapha Gaynde ma daal mi ngi ciy def ay gëstu non yi jot a ñëw gisaguñu archives yi ñëw en tout cas daal entre Conakry bi sëñ bi jógee Sénégal ba dem Gabon li ci jot a xew yëpp sëriñ bee ko wax nu dégg ko nettali na sëñ satu Jaxate nettali na sëñ du Karim Touré wax na ko mag ñi am na bés mu woolu sëñ mu Moustapha ak sëriñ Fallilou ak sëñ Basiiru di leen nettali yoonu géej gi wax nañ ni keroog lampe fotofoor bi nu taal rangoo ñi sëñ Modou Moustapha moo ko fay ci metti mës na koy nettali tamit wax nañ ne ba yàgg am mag mu dal di yuuxu ne ko mbàkke loolu metti na sëñ bi ne ko maa ngi musluus mu bañoon a am maa ngi muslu mu bañoon a am ndax am na am na grade yu ko yàlla ràng yoo xam ne du feeñ fii na suñu saaka wax na ko am na ci mbóot yoo xam ne du feeñ ci duniyaa ngir mbóoti yàlla yemul làmboog may ya def nañ ko loo xam ni sëñ Moussa Ka nee na am na ci loo xam ni làmmeñ du ko laal waaye am na ci loo xam ni rek dees na ko misaal kon ñun li nu war a def mooy Sénégal bu yow mal xiyaamee dégg lu baax li ma lay wax bu yàlla nee na ku ne indi bisam France sañu ñoo joxe màggal gi moomuñu ko Cameroun sañu ñoo joxe màggal gi moomuñu ko fi na ne ngi ko fay màggal. mais màggal gi daa jóge Sénégal bàgg foofu beneen bis boo fi dégg tamit daa jóge ca dëkk ba mu dëkk baax si Sénégal benn bis kese mooy bis boo xamante ne Sénégal mooy bersoom muy màggal gi. loolu lu mat a leeral. murit yi ci tiijaan yi ëppaliwuñ ci xaadir yi màggal gi ëppaliwuñ ci kenn fu ku mu neex na nga ne bokkuma ci c'est une fête nationale. Afrique ñoo ko moom ci la Sénégal libre ci la buumu jaam yi daggee. dafa ka kab la tey léegi nii di nga leen gis ñu dem ci sëñ Muntaxa di ko sukkal te bu bu bu bu bu réussite amuloon bu doon échec dafa am ci sëriñ bi mais loolu du am parce que sukkaluñu su sëtu la jor ñoom duñ dem mukk di di di célébrer seen diggante ak ak ak ak famille famille famille famille famille yi nga xamante ne nii boom nañ leen lan moo tax ñu ñëw ne sëñ Mountakha buñ sañoon gën a ruufoog yow waa France di ko wax barki démb la fi ambassadeur France jógee naan sëñ bi bëggoon naa teel a ñëw booba te attention imaginel te nag le 5 septembre bi mu jàkkaarloog Le Moutier gouverneur président Kershan Zile commissaire des colonies chef du service administratif Boyer, lieutenant-colonel supérieur des troupes, Jourquet, directeur de l'intérieur par intérim, Sanapolic, procureur général par intérim, Kalarac, médecin principal chef du service de santé, Ogare, lieutenant de vaisseau, délégué du commissaire de la marine, Bassiat, conseil privé titulaire, Amben, conseil privé suppléant, supervise le secrétaire archiviste. sëñ bi jàkkaarloog ñoom julli ñaari rakka yoo xamante ne saar yi gën a gudd ci alxuraan la julli. Imran ak Bakar. Bakar ñoo gën a gudd yooyu la fa assurance boobu. yow ñu woo la xamoo luñ la nar a fexel. Ah. nga am dal ak assurance mën a tal sa borom. ci seen kanam. Ah, parce que ay soldats lañu yor ñoom rek lañ raak yaakaar ordre la ñuy xaar mais bul fàtte ñoom it gisoon nañ yeneen soldats yoo xamante ne ni ca jeewal muy lu badrin kiraam aha sëriñ bee ko wax waaw waaw ahlu badrin fa la leen sëriñ bi gisee barke Seexu Xadim li xew ci màggal gi xajut Sénégal. Mamor lépp mënuñu ci ñëw. tey sa maîtrise wu yoonu géej gi